asalaamualeykum ci fête indépendance bi maa ngi sàkku suñu boroom ci weeru koor wu tedd wi mu dolli jàmm senegal président Bassirou jomay Faye mi suñu boroom teg réew mi ci loxoom li mu nas nisër yéene ko yàlla na ko yàlla jox kàttan wi président Ousmane Sonko yenn wi ñu ko teg yàlla na ko suñu boroom woyafal yéene bi am ñu am ko ñëpp ci defar réew mi yal nañu ko yàlla yombalal yal na yàlla def jàmm ci senegal yal na yàlla def tawféex ci senegal yal na yàlla dolli jàmm ci Sénégal yal na ñu yàlla kàttanal yal na ñu yàlla dolli lépp loo xam ne bànneex la te ñu bëgg ko ci réew mi li ñu bëgg di defar réew mi yal na ko yàlla yombalal ci ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi am yéene defar Sénégal vive le Sénégal.